ñeenti militaire yu ñàkk seen bakkan ci diwaanu Sindian ca Ziguinchor li ni mel accident bi ni mel li ko waral di ab explosion wu mine bu am si jiba ci jabu joor si village bu féete si sud bu Ziguinchor gannaaw bu armee bi doon amal ab opération de sécurisation bu ñu sukkandikoo si communiqué bu direction de l'information et des relation publiques bu armée bi accident bi am na ñetti blessé te mi ngi am vers 19h ci commune bu Djibajon ci noor bu Sindian te sax militaire yi jéye ji dal mi ngi leen fekkoon ci seen oto ci wàllum justice coowal mine de diamant bu mu saa Diop dina di wéy ba léegi gannaaw ba mu bénéficier woo ab retour de parquet ci alxamis bi ki fi nekkoon directeur général bu Dakar Dem Dikk dana dellu tey ci aljuma fukki fan ak juróom sa tribunal ngir mu mën a xam ana fan la wànnint di mujjee ak i gëtam si loolu parquet bi daal di sàkk ñu ubbiwaat enquête bu jëm si déclaration yu maître Moussa defoon si contrat nubile d'exploitation mine de diamant si nord bu Sénégal te mu joxoñ ci baaraamu tuuma président Macky Sall l'industrie Jean-Claude Mimran Mamadou Diagne Ndiaye ak Aly Ngouille Ndiaye mi fi nekkoon ministre des mines moom kandidaaw wu ànd gor yi jot na ci élection présidentielle 2024 ñu ngi koy toppee ay wax yu ñaaw yu muy di teg suñuy institution ak joxe ay xibaar yu amul ci wàllum société maire bu Dakar Barthélémy Diaz di taxaw ci kanamu cour suprême le 22 décembre fas yéene waat layo ci mbirum njaga Diouf di nervi bi ñu faatoon ci atum 2011 gannaaw ba ay song amee ca mairie bu Mermoz Sacré-Cœur te ba ñu ubbiwaatee dossier bi ba léegi ñu nemmeeku ci ak tekkaaralam maire bu dakaar nara yëkkati ay kàddu tey ci aljuma fukki fan ak juróom bu 16h jotee sa mairie bu Dakar fas yéene da janook ak taskatu xibaar yi. Barthélemy Diaz ñu ngi ko condamné woon si première instance ñaari atu kaso yoo xam ne. 6 mois la si tëdd. penam bi ñu confirmé woon ko en appel li ci des nag mooy. ñu xool ndax cour suprême day maintenir décision bi wala da koy kase ñu wax ci tàggat yaram huitième journée bu Ligue 1 sénégalaise de football match yi ci gën a fës bokk na ci dajewu leader bu Tëngéej FC mi jël quatrième place ci championnat bi war laale ak Sonacos bu Diourbel ci Thiès ak Jaraaf mi am treize points plus cinq te nekk deuxième place te nekk deuxième place su classement bi di daje ak AS Pikine bi am 11 points ci stade Iba Mar Diop match huitième journée yi dana am bu 16h30 jotee. ci même heure bi jàmbaar ak 6 points wam nekk avant dernier championnat national dana laale ak jamono bu Fatick mi am 9 points te occupé sixième place bi ci stade Lat Dior de Thiès. yeneen match si bis bi ñuy eggali dimanche ak déplacement bu leader Tëngéej FC ak point points ci stade Lat Dior ñii di Rufisquois yi di jouer 16h30 Sonacos bi am 8 points plus 1 te féete huitième.